bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa ashrafu alsolati wa atamu altaslimi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi altahirina altayibina ajmain wa radiya allahu an alsahabati alkiram bismillah subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida bisimilah mu dee eh, laaji tey ñu fas yéene njéem a tontu ci kartanul yàlla saa borom subhanahu wa ñu ngi koy tàmbalee ci laaju mbokk mi laaj courtier liggéeyub courtier courtier mooy koo xam ne dafa eh, samp boppam di def ku bëgg nangam mu jéem lu ko wutal ngeen d'accord ci na danga nga ko fay nangam bu dee lool nag loolu moom dagan na loolu moom dagan na bu fekkee daal waa ji moom dafa toog moom ab liggéeyam mooy xëy na léeg-léeg mën nga bëgg kër wala nga bëgg néeg wala nga bëgg pàkk buy jaay te xëy na yow mënoo ko wut amoo information yi moom mu dem di ko lijjanti ngeen d'accord na bu ko lijjantee nga fay ko nangam loola dara nekku ci dagan na bu la neexul nga bàyyi comme li mbokk mi laaj léeg-léeg def nangam da ngay def nangam déedéet yow xam nga comme forcé wuñ la dan la man nangam laay def su ma defee nangam nangam nga may fay léegi yaa moom sa bopp bu fekkee loolu gënuloo la bàyyil ndax kenn forcé wu la kon bu ne laa dinaa la woon kër guy jaay man nag li ma man mooy won la ko yaa xam jënd nga yaa xam jëndoo man danga ma fay nangam boo d'accordut ne ko ma nga dem sa yoon boo d'accordee ne ko boo ma ko wanee ma fay la nangam sart ba mu teg alhamdulilah su boobaa kon yaa ko nangu kon nag loolu jurut di kaasaat wallahu bu dee laaj bi ci tegee mbokk mi laaj xam naa laaj yi nag wax dëgg mbokk mi na ma ko jéggal bu dee bi mu ndax malaaka yàlla dañ leen fay tuyaaba ak ndax bàyyi ma am na xel ak ndax picc day julli ak bu julliwut day yooyu yooyu ma ko ñu bàyyi xel kuy laaj rek na wut laaj yu am solo yoo xam ne ku ko dégg dana ci mën a jariñu wala boo amut laaj bàyyi ba ëllëg boo amee laaj ñu bàyyi ci xel bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj mel na mbokk ngi nii daa dugg ci jàkka ji mbokk mii laaj na nee na jàkk ji feesutoon am na ay place waaye waa ji moom daa dem ba ca wetu imaam mu taxaw fa waaw kooku de dañ ko war a laaj lool lu mu ci jublu rek xëy na mën naa am tontu la lu bari ci li nit ñi def benn mu nekk ñàkk xam wala boog kooka ñu laaj ko ko ba xam lu mu ci jublu parce que bu fekkee jàkk ji feesut am nga foo war a taxaw nga bàyyi fi loo ñoo ñëpp dem taxaw ci wetu imaam loo ci jublu loolu moom kenn santaane wu ko lam def kenn santaane wu ko kenn xamul lu mu ci jublu xëy na dafa jaawale ndax am na masala yoo xam ne am na benn xadis bu rot boo xam ne li muy bañ mooy aso euh, maanaam nga maanaam nga wéet solaatu munfaridan xalfa saf wala xalfa sufuuf maanaam nga ñëw fekk sàpp yëpp fees léegi nga sof sa sàppees bopp yow doo nga taxaw yow cundum nga taxaw foofa am na xadis bu ñuy jàng boo xam ne ñeen ñi dañ ciy tegtaloo di wax ne kon boo ñëwee fekk sàpp yi fees nga xam ne ci ginnaaw moom kenn nekku fa dëgg la yow dong yaa fa nekk nga xam ne boo fa bëggee taxaw yow dong yaa taxaw am na ñoo xam ne dañuy wax ne su boobaa a xëcc kenn ci ginnaaw mu wéttali la yéen ñaar ngeen sos sàppe wala boog yow nga dem taxaw ci wetu imaam mën naa am mbokk mi lii la gis man naa am lii la gis waaye bu dee mbokk mi ni mu ko laajee moom njuumte da ciy am ndax boo nee sàppe yi féesut kon ba mu ñëwee daa war a dugg ci sàppe yi damaa yaakaar ne waa ji sàppe yi dafa fees léegi nag ci ginnaaw dëgg la am na espace man na fee taxaw mais dafay bañ a taxaw moom dong ngir wattandi ko xadis bi ngir wattandi ko xadis bi wax ne ku julli yow dong nga ne yow nekkoo ci biir sàppe da ngaa ñu fekkee sàppe sa fees yow képp nga taxaw ci ginnaaw doo am julli doonte xadis boobu tabarakaala fiihi maa fiihi am na bu dee ci yoonu Maalik duñ ci sukkandiku boo ñëwoon fekk sàppe yi fees yow da to da ngay taxaw ci digg bi rek da ngay sa sàppes bopp taxaw ci digg bi ku ñëw jokk sa côté ndeyjoor bu sa côté ndeyjoor feesee ñu jokk sa côté càmmooñ mën naa am kooka xëy na loolu la wallaahu alam nañ ko nañ ko laaj ba xam loolu la ci jublu waaye bu fekkee sàppe yi feesut daa war a taxaw ci sàppe si loolu mu kenn santaane ko bu sàppe yi feesee bu dee ci yoonu Malick sosal sa sàppe bopp yow ci ginnaaw nga taxaw ci digg bi bu dee ci ñeneen ñi nag dañuy wax ne da war a xëcc kenn mu taxaw ak yow ndax kenn du julli moom dong cundum ci ak sàppe wala nga dem ba ca wetu imaam nga taxaw fa wallaahu alam bu laaj bi ci tege mbokk mi laaj imaam joo xam ne bu ñu ko liqaamalee ba noppi day nekk di tëj ay buntu wala di lijjanti leneen loolu moom njuumte la loolu moom njuumte la eh, jàkka daa am organisation yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku mënoon a organiser jàkka la gannaaw ba saxaaba yi sayidna Usmaan radiallahu anhu nee ñu buñ ko mosaana eh, jiital mu war a jiite nit ñi mu war a eh, julli julli julli nekk seen imaam daa am ñi muy yebal ñooñu ñoo koy toppatoo sàppe si du kàbbar mukk li fekk néew ñëw ñëwuñ ne ko xool nañ sàppe si gis nañ ne lépp jaar na yoon muy doo ko kàbbar kon balaa julligee tàmbali bu fekkee da ngay tëj fenêtre nga tëj ko ci booba amaa nag nga xaar bañ li amal la nga xam ne desul dara lu julli ngay lijjanti leneen loola njuumte la loolu moom njuumte lu rëy la daa fekk na nag ne lu ci bari ci suñ dëkk yi imaam kenn du ko forme kenn du duñ lijjën ba xam jàng na la mu war a jàng daanaka njëkk jël la rek ndax bañ tabaxee jumaa ja ba noppi wala jàkka ji ba noppi euh, da ngay biseet nga ñëw julli du amul kenn kuy jiite ñu jekk nga jiital la nga dem bu doon ci yeneen dëkk yi jaar yoon dëgg dëgg imaam dañ koy tànn faw day nekk borom xam dëgg dëgg sax nekk ku xam nii rek nga xam ne xam nga sa diina déedéet day nekk am xam dëgg koo xam ne boo ko laajee masala boo ko laaj mu mën la ci indil boo ne ko dem nga miraasal ma mu mën a dem day nekk day nekk imaam dëgg dëgg lay doon jàng njàng mu kawe ba noppi nekk ko yeewu ba noppi nekk xam xam communication ni muy jëflanteeg nit ñi ah nga ne du nekk di gëdd nit ñi wala nangam kooka lay doon ba noppi jub moom ci boppam nag nga xam ne këram jub na fa maanaam ñëpp dañ koy dañ koy mën a roy moom ni mu yore ay soxnaam ni muy yere ay doomam lépp dañ ko cee mën a roy loolu lañ bëgg ci imam waaye nag comme loolu amut imam njëkk jël moom mën naa yor jikko ju nekk mën naa nekk am njóobeen mu ñëw ñu fal ko yu mel noonu moo koy waral waaye ñu liqaam nag ngay taxaw di tëj ay fenêtre lu la ko teewoon a tëj avant ñuy liqaam loolu njuumte rëy la rëy la bu dee laaj bi ci teg mbokk mi laaj ndax imaam ginnaaw bu ñu ko falee ba noppi euh, ndax moom mën naa falewaat waa loolu ma aju ca nit ña rek ma nga aju ca ñooña bu fekkee dañ koo fal ne ko jàkk ji lépp teg nañ ko sa loxo kooku moom bu ko neexee mu ne diw léegi fal naa la ngay noddu diw fal naa la nga yor ceeb bi jàkk ji diw nangam diw fal naa la ngay jàngale ci jàkk ji bu ko neexee ah bu fekkee nag ñooña moom dañ koo tànn rek na ko yow dee ñu jiital képp kon kooka jiite rek lay man bu ñu bëggee lay nan ñu fal keneen wallahu aalam bismillah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj koo xam ne dafa yor ndox waaye ndox mi dafa saf parfum wala dafa saf essence ndox mi daal mënta jàpp ci gàttal nu muy def day tiim wallahu aalam bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj ne moom digganteem ak menn mbokk jullitam dafa am ñagas-ñagas dañoo meroo woon wala ñu xuloo woon waaye moom nee na xuloo bi léegi génn na ko ci xolam ba jëppalatu ko dara waaye li mënul nag mooy dem nuyu ko saafanteek moom waa laaj bi mooy lu ko ko tee man lan la lu loolu lu tax mënu ko lu tax mu ne mënuma ko ah kay na ko mën na ko moom wax dëgg yàlla dem nuyu ko moom mën na ko léegi lu ko ko def ndax rëy la ndax soytaane la ndax lu mën a doon loolu mooy laaj bi waaye mu mën na ko dem fekk ko mu toog mu jox ko loxo ne ko baal ma xaq loolu moom mën na ko ay daf saytaane moo naan ko yow daal nangam boo ko defee sa daraja dana wàcc ah nangam comme moo la tooñoon moo la defoon nangam kon kooka na xam ne saytaane moo ko jekkoogun kon kooka na xam ne saytaane moo ko yeew war naa góor góor ba dindi tënk bi ko sa saytaane tënk mooy wàcce darajaam jëpp dem ca bokk mooma toog nuyu ko jox ko loxo nangam ne ko man xam naa ne maa la tooñoon man damaa damaa jubadi man damaa xaw a dëng de man ku ànd man bay boo nga may jéggal rek nangam nangam nangam maa ngi lay jéggul nangam mbokk mooma même bu fekkee xam na ne kii tooñu ko moom dana ko xam dana xam ne sëñ kii daa baax di wax waaye wax dëgg yàlla gannaaw ba ma xalaatee xam naa ne maa ko tooñoon waaye moom daa wàcce boppam li gën a jafe ci àddina mooy wàcce sa bopp nit ñi duñ ko nangu te moo ne nag moo gën a gaaw ci àgg ci yàlla toroxlu moo tax mboolem lu ñu yàlla sant lu ci ëpp daa bëgg ñu toroxlu gis nga julli mooy magum jëm jëmm di sëgg ka siggi ak a jël sa jë ko këpp ci suuf loola toroxlu la mhm. moo tax sëñ ca aljawhar nafis mu ne na booy julli rukon yi ak sujjóot lépp na ci fas na ak toroxlu lay doon wa annaha wa annaha tawaaduun lillahi subhanahu fama lahu mubaahi lépp na nga ko toroxlu gi la ci yàlla bëgg waaye sëgg gi sëgg gi loolu moo amu ci amu ci njariñ entraînement la ndax kii entraînement mi ngi def mi ngi def lu mel ne julli mi ngi sëgg di siggi di wëndeel ay loxoom mais fas gi nga ciy fas na lii damay toroxlu yàlla di ko wan sama njaam loola mooy yëkkati sa maqaam kon nag ne daa mel ak rëy daa nekk ci moom wala yu mel noona na ko na bàyyi lépp wàcce dara jaam dem ca kooka ànd ak moom toroxal seytaane mooy seytaane li mu gën a bëgg mooy ñaari jullit ñu ñu ñu meroo te ñaari jullit yonent bi nee na bu fekkee dañoo meroo ka njëkk a wàcce boppam dem nuyoo fexe ba diggante ba rafetaat la muy am ci tuyaaba yàlla rek moo ko xam wallahu aalam laaj bi ci tegee mbokk mi euh, di laaj ne daa xàmmewut xabla salaam ak baada salaam xabla mooy firi avant laata kon nee na xamul baatu arab ñu firi ko ko boo déggee ñu ne xabla rek jàpp ko mooy laataa avant laata salaam di firi sëlmal foofu kon laataa ngay sëlmal mooy xabla laata ngay sëlmal kon sujjóot bi yaa ngi koy def laataa ngay sëlmal lu koy waral mooy bu fekkee da ngaa wàññi ci julli gi ay sunna moo xam da bàyyi faatiha wala euh, bàyyi euh, saar faatiha moom farata la da bàyyi saar wala nga bàyyi taaya wala allahu akbar yi ngay wax booy sëgg ak sigi nga bàyyi ci lu mat ñaar jëm kaw kooku xabla salaam ngay def mooy laataa nga sëlmal boo taayaa ba taaya jeex nga def allahuma salli ba allahuma salli jeex nga xam ne fi mu toll nii moom da waroon a sëlmal bu fekk bu fekkoon ne waroo réparé da ngaa waroon a sëlmal booba na ngay dem sujjoot toog sujjootaat toog taayawaat daal di sëlmal nga da julli gi benn sëlmal lay doon baax da nag mooy après mooy ginnaaw baax da mooy ginnaaw ginnaaw gisoo ñiy waxtaan bu ñu buñ eh, sant yàlla julli ci yoon daane amma ba'da mooy ginnaaw loolu da sax nit ñi di ko wax hmm, maa ngi sant leen maa ngi def ni maa def naa ngi ginnaaw loolu nag mbokk yi gis nga ginnaaw ba'da amma ba'da kon ba'da mooy ginnaaw ginnaaw sëlmal ba mooy ñaari sujjóot yi nga war a sujjóot da xaar ba sëlmal ba noppi doo ko dem nag su sujjóot toog sujjóotaa toog taaya doo ko sëlmal kon baxda mooy ginnaaw xabla mooy laataa incha allah baxda lu koy waral mooy da yokk ci julli gi lu ci bokkut te tëyoo ko da yokk julli gi lu ci bokkut te tëyoo ko moo xam da ngaa jàng faatiha ñaari yoon benn yoon la ñu war a jàng nga sujjóot ñetti yoon ñaari yoon lañu war a sujjóot ñeenti rakk nga waroon julli nga doole ci benn muy juróom ngi noonu yu mel noonu ak yu ko nuru wallahu aalamu laaj bi ci tegee mbokk mi euh, laaj ndax booy joxe asaka dangaa war a wax ñooñu ne ko lii asaka la déedéet déet loolu da waru la boo koy génn daal yow na nga ko yéene sa diggante yàlla waaye boo koy jox kenn mën nga koo jox rek juru nga naa ko lii asaka la mën nga ko ah, lii xam naa xéewal la rek nu mu gën a suturoo nag moo gën xaar ba julli timis ba noppi ba def say wérd say lawraat ba noppi daal di bokk sa ñaar fukki junne yi nga war a génne asaka maanaam yéene nga ci ne lii asaka la dem ba ci euh, kër menn mbokk salaamaaleykum na ngeen def nanga ana bàyyi nanga mi ngi ci biir moom laa soxla woon euh, dugg ak ci biir néeg bi wala bu fekkee néeg ba am na ñu fa nekk nga ne ko man de dama laa nañ doxantu ci bitti rek bu génnee tuuti rek nga ne ah, lii xam naa xéewal la rek jërëjëf nangam daal di dem sa yoon jeex na def ko ngir jëmm yàlla waaye du jar na nga naa ko lii asaka la déedéet euh, wallahu taala alamu sawaab bisimilah mu dee laaj bi ci mbokk mi laaj koo xam ne dafa faatu te moom da ko ameeloon bor ci misaal nit lebal na ko ñaar fukki ci misaal waaye kooka faatu na mu ne ndax mën naa jékki-jékki jël jooju jox ko ay mbokkam noonu te du leen ko wax loo ciy bañ looy bañ ci wax leen ko lu ci nekk looy bañ ci wax seen baay moom a lebaloon lii loo ci bañ kon wax leen ko <laughs> kon mi ngi nii lii ñaar fukki junni la seen bàyyi moom ko lebaloon ñu xam ne lii ci alale donn ji la bokk waaye boo jekkee jekki jox leen ko mën nañ ko bañ a miiras ndax dañ naan kii xam naa dañu koo may ko war a miiras bor bi dañ ko war a miiras ndax daa bokk ci li fi ki faatu buñ koy miiras ñëpp duñ tolloo waaye boo jekkee jekk jël euh, fukki junni jox leen wala ñaar fukki junni dañuy def ne kii diw dañoo dimbali buñ la fekkee dañoo dimbali nag dañ koy séddoo duñ ko miiras kon loo ci bañ looy bañ ci ne lii lii maa ko ameloon seen bàyyi lu ci nekk dara néew ci wallahu aalam bu dee laaj bi ci tegee moom laaj bi leerut mooy ki naan xuma seen bàyyi daa faatu miraas suñ ko woon booba xamutoon na miraas daa war loolu moom ñu ngi sàkku ci mbokk yi jàllale laaj yi nañuy dimbale ngir yàlla bu ñu leen yónnee laaj nañ ko déglu lépp luñ xam ne bu fekkee laaj bi daa gudd ñu la laaj bi kat laajaat ko la nga tënk ko wala ñoom seen bopp ñu xool du ci gën a gàtt ñu laaj ko buñ la yónnee laaj te nga xam ne laaj bii barki démb dong tontu woon nañ ko demal nga xool tontu ya bul taayeel bul wax ne ah ci biir rek mu tontuwaat déedéet ku nekk daa war a jàpp ci côté buy defar ku nekk da cee war a jàpp waaye bu la wax rek man yónnee nañ ma ko naa sànni ci biir daaw ji rek sama déedéet yow da ngay organiser bokk nga ci ñiy defar ku nekk am nga loo man kon yaa ngi topp laaj yi gis nga ne laaj bi tontu nañ ko barki démb buñ la ko laajee bul taayal demal nga xoolaat vocal yi nga nga déglu ko ba gis tontu la nga ne ko vocal bi déglu ko tontu baa ngi ci biir waaye bul ne naa sànni noonu déedéet naka noonu bu laaj bi leeru nga déglu ko ne ko yow sëñ bi sa laaj bi est leer na loo ci bëgg wax ba mu leeral la ko naññi nga koy doog a dugal bu leerut nga ne ko sa laaj bi leerut ndax bu ñëwee ci daaj loolu dong lañ koy waxaat kon nag dee la ñu ci di ko teel a def mu gën a gàtt bi leerut xaw ma lu a wax ne daa jaay alali baayam séddale ko jox na ay fereeram waaye xaw ma lu mu bëgg wax li ma jàpp ne moom la wax seen baay daa faatu bàyyi fi dara ñu jaay loola mu séddale ko ma ne miiraas suñ ko da koo nee na kooka xamutoon ne ku faat ko war a miiraas loolu tamit jaaxal na ma ndax booba gone la gone nu muy miraase xanaa gone bu bàyyam faatoo ana ay mag nit du faatu ñu bàyyi ma bàyyi ay gone ke ñëpp toog euh, croiser les bras kenn kenn du ci wax dara xanaa dana am ay kilifa yu taxaw bàyyam même moom bu xamul ay miraas ay mbokkam danañ ko xam danañ wax ne ah, seen bàyyi alal ji fi bàyyi nii lañ war a defere même bu xamul miraas war naa laaj ah ku faatu nu ñu war a def sa alal kon laaj bi xaw naa lënt na kon ñu jéggal ñu ko ndax bëgguñ cee wax luñ ñu xamut wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi di laaj ne boo fekkee mbooloo toog nga ne leen assalaamu aleykum ndax ñoom ñëpp ñoo la war a delloo wala bu la ci ñenn delloo rek doy na waaw bu la ci ñenn delloo rek euh, farata ca wàcc na leen lépp mën na kenn ku ne nag boo mënee sikki na ko aleykum salaam loola moo gën wallahu aalam mbokk moom moom laajaat na julli suba ndax taaye ju njëkk wala taaye ju loolu tontu naa ko barki démb képp laa ko tontu mbokk mi dugal laaj bi wala moom sax ci daara la bokk nga dem topp laaj yooya wallahu taala a'lamu sawaab wa ilayhi almarji'u wal ma'ab haasa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi at-taahiriin at-tayyibiin ajma'in wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi lii mooy li fi jotoon a rot ci ay laaj góorgóorlu nañ ci suñu kem kàttan ak suñu gàtt xam-xam lépp lu ci dëng tax naa dana bari lool ñu jéggal na ko oroom xam-xam yi ko lu ci jub nag daa fekkoon lool di coobare yàlla rek mu jaare ko ci ñun ñu koy sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.